sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi di borom xam-xam bu mag bu kenn dootul naatable xam-xamam ci wàllu seet listixaar lasraar ak ñaan sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi amu ci morom yow mi rab jàpp wala cat sonal la sa wërsëg tëju loo yaakaar mu tas wala nga bëgg a wala nga tukki bëgg am ay kayit ngir ñibbisi wala nga bëgg soxna wala nga bëgg borom kër dawal gaaw jokkoo ak sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi mu faj sa aajo ci lu gaaw a gaaw seet ak listixaar bu wóor wan la say mbir ba lépp leer ci yow loolu moom ñëpp maase nañ ñi amu ci morom ngir jokkoo moom wooteel ci numéro téléphone bi 75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 bu ñu sukkandikoo ci suñu nattango yi di waa l'observateur ñoom nag delsiwaat nañu ñeel kon l'enquête bi ak division des investigations criminelles DIC li nga xam ne kon fësal na ko ci itam Nabou Leye mi nga xam ni mi ñoo ngi ko ci tudd ñu ni kon mbir mi na mu daal di demee nag nen rek la moom nag ki nga xam ni moom mooy nabu lay ak Aziz nag dañoo jotee na waxtaan rek wala itam am lu ñu jote woon ñeel kon rek lu jógee si Wally ndax ñu ni kon Wally ak Nabou Leye jotuñu woon déggoo benn yoon ah, tax na kon Aziz nag mii nabu lay xamal ko ni ko Wally nag danga ko war a génnee ci appartement bi Aziz nag lànk carré ci mbir moomee kon ni ah, du ko def benn yoon mu mel ni mbir mi nag dem ba ëpp leen doole ah, tax na kon Nabou Leye ñu ni moom nag dugal ci loxoom ci la daal di def mbir mi ngir rek daal di rek dal seen kaw wala rek daal di leen def punition jëm nag ci kaw kii di Aziz daal di woo ñoo xam ni rek dañuy def ay ñaawteef ndax lañu bëggoon mooy Aziz ña nga xam ni ñoo ko topp ak ñamuy àndal kon rek mu bàyyi leen waaye ñu ni amuñu woon intention wala amuñu woon mbébét benn yoon kii rek mën koo faat balaay situation bi kon sax di euh, mujjee fi nga xam ni tey jii. fa la daal di mujjee ñu ni ca guddi googee nag kon la lépp rek tàmbalee ñeel kon ba ñu jógee ca cant ya amoon ca ñetti mbaar jamono jooje kon nabuley ñu ni dafa rek daal di yóbbu Aziz foofe ca Pikine Icotaf ginnaaw gi nag El Hadji euh, du Diawo ci la leen fekk foofe gi ñu pare ci la jël taxi kon rek daal di fekki Aziz Dabala ca Cité Technopole ànd fa ak ñeneen ñoo xam ne itam ña ngi ko fa doon xaar ñu ni kon mbir mi fa la tàmbalee jamono jooje ñu nekkoon kon ca appartement ba ak ki nga xam ni rek moom mooy Wally ndax moom jógoon na di leen rek euh, daal di rek xeex ak ñoom doon bëgg sax défendre ki nga xam ni moom mooy Aziz ñu ni kon ca lañ ko rek jamee lu toll nag ci fukki jam-jam ak benn Aziz moom itam ñu gaañ ko gaañ bu metti ndax nee nañu kon nag jot nañu ko jam moom itam lu toll ci fukki jam jam ak juróom jikkoom ginnaaw góogee nag ñu ni mbir mi nag doy waar loolu tax na moom Nabou Leye ñu ni jot na itam rek doon wax téléphone ak agresseur yooyu nga xam ni ñoo def mbir mu ñaaw bi wax nañu rek lu toll ci euh, ba 4 heures du matin ñoo ngi doon wax nag ñeel li nga xam ni rek kon moom mooy mbir mi moo waral kon fi mu nekk nii moom euh, ginnaaw téléphone am bi moo ko rek daal di feeñal tax na ñu jàpp ni kon moom laale na ci mbir mi moo waral tey ji kon ñu daal koy euh, téye mu mel ni kon danañ leen taxawal rek ginnaaw jugement bi foofee ca chambre criminelle la. ñoom feccikat yi sax booloo nañu rek àndu dem jaale ji nag waa famille Abdoul Aziz baax ñu gën koo xam ci Aziz Dabala moom feccikat bi nga xam ni moom la ñu daal di fekk mu faatu ca appartement wam nekk foofee ca Pikine Technopole ak xaritam bi di Boubacar Gano ñu gën koo xam ci Wally mu mel ni kon mbir mi nag metti na loolu ginnaaw nañu ko gisee nañu ko déggee ak tamit na mu demee tax na moom Oumou saw sax yëkkati ay kàddu kon rek ñeel feccikat yi di wax ni am nañu loolu leen metti am na lu leen bett loolu waaye lépp rek dañu koy delloo ci loxo yàlla.